salut à toutes et à tous amis de Light TV dal leen ak jàmm ah tey jii nag dañoo am euh, mbégte bu baax a baax a baax di accueillir ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk CDJ conseil départemental des jeunes euh, bu Pikine euh, sëñ bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi lay nuyu Germaine. Uh-huh. est-ce que mën nga ñoo baal s'il vous nga fàttali ñu tur bi. waaw man maa ngi tudd Boubacar Mbengue nekk président conseil communal de la jeunesse bu Pikine Ouest wante bokk ci li nga xam ne moom la ñuy wax comité exécutif bu conseil départemental de la jeunesse de Pikine d'accord euh, euh, Boubacar euh, mu mel ni da ngeen am benn programme bu mag bi ngeen di waajal parce que foo tourné ci Pikine foo tourné ci Sénégal ah conseil départemental des jeunes rek la ñuy waxtaanee lu xew waaw li xew mooy wax dëgg yàlla lu toll ni conseil départemental de la jeunesse su taxawee ne dafay euh, def bërëb boo xam ne muy siège espace boo xam ne pour ndaw ñi la euh, dafay laaj ñu waxtaanee ko muy dañoo bëgg a def ouverture li nga xam ne mooy espace d'accueil d'orientation d'accompagnement d'encadrement d'incubation en tout cas des jeunes de Pikine muy bës boo xam ne wax dëgg yàlla dañ cee woo autorités yi woo ci ndaw ñi pour ñu ñëw ñu inaugurer officiellement li nga xam ne mooy siège conseil départementale de la jeunesse ndax nag yàgg na mosu fee am ren mu ñëw am dafa laaj ñu waxtaanee ko. d'accord est-ce que mën nañu xam euh, euh, salle boobu noonu pour lan lay nekk wala wala siège boobu pour lan lay nekk ji exactement. voilà yan e- genre liggéey lañ fay fekk wala lañ fay dogal. effectivement mooy mooy mooy li ma wax sànq. dafay doon espace boo xam ne dina fexe ba ndaw ñi di ñëw fekkee dañoo am ay jafe-jafe mën leen di leen di leen di leen wan yoon bi. bu fekkee dañoo ay soxla wala ay laaj yoo xam ne dañ ko bëgg a laaj jëm ci wa wàllu emploi jëm ci wàllu formation jëm ci wàllu lépp loo xam ni ndaw da ko soxla pour mën a euh, sukkaliku bu ñu ñëwee ci espace boobu danañ leen ko mën a jox en terme d'information mais li teewul espace boobu dina tax ñu mën a accueillir ay partenaires waxtaan ak ñoom ci ci ci mbiru ndaw ñi fexe aussi ba vraiment ci waxtaan yooyu ñu am ci ay projets yoo xam ne danañ ko mën a delloo ndaw ñi loolu daal mooy njariñu li nga xam ne mooy espace boobu mooy siège boobu nga xam ne bëgg nañ ko koo inaugurer le 24 février euh, ci watu cinéma awo bi incha allah xam nga lii dafa baax euh, nga leeral ko jeunes yi aussi tamit ñoom ñu xam ni euh, li nga xamante ne moom le conseil départemental de jeunes di def wala wala di mbëgtal nii hmm. dafa nekk loo xam ne dafa positif au moins ñoom it dinañ ci mën a gis a ñëw ni mu ko waree mais euh, dafa leen jeunes yëpp comme ni mu ko waree looloo tax ngeen seet si ñu aussi tamit ngeen di wax jeunes yi pour ñoom ñu comprendre que ni lii mbiru ñëpp la ginnaaw nekk expliqué nga ñu déjà li nga xamante moom moo nekk idée wu mbir mi bopp effectivement Germaine mooy li nga wax rek tey ndaw conseil départemental képp kuy ndaw ci nga bokk ba tax na it bëgg nañu képp kuy ndaw ci li ñuy def nga ñëw fekkee ko bokk ci joxe sa xalaat joxe ci sa xam-xam ba tax na ñu ngi woo ndaw Pikine yëpp bàyyiwuñu kenn mouvement de jeunesse ñu ngi leen di woo ñu ngi woo ODCAV ñu ngi woo fédération des handicapés ñu ngi woo fédération des élèves et étudiants ñu ngi woo ndaw catholique yi ñu ngi woo ndaw musulman yi ñu ngi woo bépp ndaw boo xam ne yaa ngi ci réew mi nga nekk ci mécanicien bi nga nekk ci menuisier bi nga nekk ci làmb ji foo mënti nekk ñu ngi lay woo nga ñëw bis boobu suñu bis la parce que espace boobu suñu espace la bu ko defee ensemble ñu tijji ko wan autorité ni lii ñun ñoo ko moom teyit lii dafa baax ñu càmmal ñu ko mais aussi ñu def ci seen doole. déjà yaa ngi may wax autorité mais man élus locaux yi laa lay wax de manière générale. Ah, d'accord naa seen taxawaay. waaw élus locaux yi tey fi mu toll nii ñu ci bari jël nañu ay. jël nañu ay décision pour ñëw bokk ak ñun li nga xam ne mooy bés boobu lu ci mel ne le ministre de la jeunesse de la construction citoyenne et de la promotion du volontariat muy monsieur Pape Gorgui Ndaw incha Pape gi Ndong incha allah moo koy présider su weesoo loolu le maire de la ville mooy parrain bi su weesoo loolu bari na ay kilifa yoo xam ne ku ci mel ne le directeur du euh, marché poisson marché central du de poisson moom it dana ñëw am ci taxawaay ku ci mel ne Pape Ndiambé Dieng ku ci mel ne ñu baree baree baree baree bare ñi nga xam ne ñooy les euh, maires des seize communes ah de Pikine ñoom itam dana ñëw fekkee ko pour wax la ni rek incha allah képp kuy kilifa jox nga sa engagement ni danga ñëw teew fekkee bés boobu est-ce que mën nañu xam ban heure lay commencer ak ban heure lay jeex ak lan moo nekk programme bi surtout. waaw incha allah euh, bëgg nañoo daam tàmbali li à partir de quinze heures. maanaam trois heures ci ngoon. ñu tàmbali li nga xam ne mooy mooy mbir mi. Mhm. mais li ci ëpp jeexalee ko nag. waaw app xam naa ni 19 heures. Mhm. bu soobee yàlla bëgg nañ mu jeex. mais bu loolu weesoo ci biir lañ ca bëgg a def yépp mooy vraiment déjà jox kàddu gi ndaw ñi ñu wax lan mooy seen xalaat ci li nga xam ne taxawal nañ ko. su loolu weesoo autorité ya fa nekk si ñu wax seen xalaat wax jël ay engagement bés boobu mais aussi wax leen nan ak lan lan la conseil départemental waaja la def bu ko defee ñu jël ci aussi ay engagement bu loolu weesoo amoon na ñoo xam ne tey ñu ngi woon conseil di ay kilifa def ci ay jéego yu mu am solo bés boobu aussi bëgg nañ leen décorer euh, sargal leen ci kanamu askan bi yëpp loolu daal mooy li nga xam ne euh, bés boobu danañ ko tënk mais aussi bu weesoo loolu muy inaugurer officiellement li nga xam ne mooy chaise boobu euh, nga xam ne mooy espace su ndaw ñi. Euh, xam naa ne en tout cas Boubacar loolu lu am solo la. Mm-hmm. et puis euh, man maay maay lancé euh, message jeunes wax leen rek ni kaay leen ci lu ñu bokk noonu la ñu ko jeunes woowee noonu la ñu ko waa CDJ waxee aussi tamit donc képp koo xamante ni jeune nga te nga dëkk ci Pikine rek na jàpp rek mbir mi sa mbir la parce que man mi mbir mi sama mbir la bokk naa ci te danaa ci nekk bu soobee yàlla Boubacar ma bàyyi la nga daaneel ak ñi lay si a tànk ma dem ci studio 2 moo yore communication bi comme ça ñu waxtaan ci de li nga xam mooy communication bi. merci beaucoup Germaine maa ngi lay sant di la gërëm. di wax encore une fois ndaw ñi. ñëw leen seen yëf la. ñëw leen bokk ci ñëw leen ensemble ñu xool nan la ñu mën a def ngir Pikine mën a jëm ca kanam merci beaucoup. merci beaucoup également à vous Boubacar euh, euh, waaye tamit di leen remercier di leen wax rek ni jeexagul koñ leen ñu ci beneen bi parce que ñu ngi dem jëli ji ki nga xam moom moo yore communication bi gars yi tout de suite.